salaatu ala nabi lay laaj lan mooy njëriñam man de lot naa ci wax njëriñi salaatu ala bi man sama bopp lot naa ci guddi gi xat na ci wax sala njëriñi salaatu ala nabi dana la may rek nga xam ne ku la gën a bari salaatu ala nabi moo la gën a jege yonente bi sallallahu alayhi wa nga xam ne am na ci gaay yàlla yi ñoo xam ne bi leen gis yonente bi tëyee ci zahir laa wax di wax ak moom nii ñii juróom fukki junni salaatu ala nabi lañ daan def par bis ba gis ko jaxran ñii fanweeri junni ba gis ko jaxran mooy ñi gën a néewle waaye li gën a li gën a gàtt mooy na ko gën a barele yonent bi di la gën a sopp suñu borom di la gën a sopp salaatu ala nabi day barkeel dundu nit te barkeem day sax ba ci sa njaboot salaatu ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a yàlla ci jaam ñi àgg ci suñu borom la mu gën a sopp ca la gën a gaawe mooy salaatu ala nabi sëñ ci wax na ci Masaalikul Jinaan ne Limaamu Sanusi wax na ne salaatu ala nabi rek la nit mën a jàpp ba àgg ci yàlla te amuloo sëriñ te doo kon salaatu ala nabi bu foor la salaatu ala nabi dana jàpp ndil jéggi siraat booy jéggi siraat xam ngeen ne jéggi siraat jaar ñi ñu ci ñu ci ñu ci rawante lañ ñu ci ëppalante ñu nga xam ne dañoo amee ay ton ci bàkkaar ñi di ko diri ànd ak moom jàppandu léeg-léeg seen loxo rëcc ñu jàpp mu des tànk yi wala tànk yi rëcc loxo yi safara yi di leen xoyam di taal seen karaw ak ñi nga xam ne dañoo gaawe ne xel ci jéggi siraat ak ñi nga xam ne bu ñu jubee siraat ñi nga ko waxee juzya mu'minu fa inna nuura wajhika yutfi'u yëpp yutfi'u naari aw yutfi'u uni am ci julliti yàlla ñi way gëm ñoo xam ne seen leeru ngëm àgg na ci bu ñu nee jàkk sirat ngir wara a sirat siraat daf leen di wax ne yow aji dem ci gaawal sa leeri xar kanam yi ko day fay sama safara way té nak ganna mom salatu al nabi yonente bi alayhi wasallam mo gënal yalla lepp lu mom bo sété seetee ak jawahirul maani dañ la wax ne sun borom ci bopam tabaraka taala bo bëggee gëna a gaaw am ngërëmam saxol salatu ala nabi saxol salatu ala nabi da tax duñ la ci bakkar dana tegg musibay adduna ak musibay àllaaxira dana barkeel dunduk nit ki dana ko ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na bis gudul bis ajuma ak guddi guddi guddi guddi ajuma malaayika mooy toog ci sama bopp bu diw jullee ci man benn yoon mu xamal ma ko ma julli ci moom fukki yoon bu jullee ci man fukki yoon ma julli ci moom téeméer yoon bu julee si man téeméer ma julli si yow julee ila axiri ba nekk ma julli si yow nangu sa yaram dana araamal safara lu dul guddik ajuma ak moom bu nit ki jullee ci moom moo koy jéggal boppam julli ci kooka bu ngeen seet ah. wala na ci bari julli ci yonent allahumma salli ala rawatina bisu ajuma ndax sallallahu alayhi wa sallam fépp soo na ci moom am na mu toog ci boppam daf koy yëgal ne ko diw julli na ci yow bu ko defee ma dal di julli ci moom bu yonent bi jullee ci moom suñu borom dana ànd ak malaayikaam julli ci moom benn yoon boo julli ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak suñu borom dana julli ci yow fukki yoon boo jullee ci yow fukki yoon mu julli ci yow téeméer boo jullee ci moom téeméer mu julli ci yow junni te kon sa yaram dana araam safara te nee ñu képp koo xam ne julli nga ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñetti fukki yoon suñu borom dana la jéggal bàkkaaru juróom-ñetti fukki at dañ ne sallallahu alayhi wa sallam nan la ñuy jullee ci yow mu ne da nga naan allahumma salli ala muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyi lu mu mu ne ñaari am na ñeneen ñaari baat ñoo xam ne ñu woyof la ci lamiñ te diis nañu lool ci bu keroog gisee bu ñu peese jëf yi te ñaari baat la ñoo xam ne yàlla sopp na leen lool mooy subhanallahi wa bi amdihi subhanallahi al azim jéggulu kon ak wax baat yooyu day far ay bàkkaar te sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xam ne wéet nga fàttali ko yàlla ba jooy say bët yi nga rangooñ ngir yàlla rek sa yaram dana araam safara jàng